moo tax ñu ni li Cheikh Al Hadj wax te jële ko ci yonent bi yonent bi wax ni yi ñu tuddee ngëneel dinañ ko di jël par benn ba mu jeex tudd na xadis ba moom Cheikh Al Hadj waaye tudd na la mu gëm loo xam ni xadis ba mënu ko jaar fen te moo di li mu wax ni ñaar daal wóor na ko ni du jeex ci àdduna yàlla du jeex ci àdduna te bu jeexul nag yiw du jeex waaw moo tax jafewul xàmme rekk moo ci am solo waaw muy waxitam ni jamono di deme ji te Sëriñ Babacar daan ko nettali daje jaayante dëdd jëwante ci pénc baaxul waaw daje jaayante dëdd jëwante ci pénc baaxul bu dee diine mu tas bu dee parti politik mu tas bu dee mouvement de soutien mu tas bu dee famille mu tas ma wax la ko léegi waaw ah. moo tax yàlla wax yonent bi ci alquran ni ko ca kanam ca kanam xarit dootul yomb complice mooy yomb waaw al asdiqa dootul am خلطا رك مويام الخلطاء والخلطاء يبغي بعضهم على بعض لا شك فسا خريد نكل نغا ديفاندر بوزيسيون سيتال درم سو بانيو مايكو جام باريتول دي paretul de waaye nag jar na delloo si yiw la de lu tax mooy li yàlla xas jàppe nit ñi ñuy njabootu boppam boo ko deful ngir xarit bi def ko ngir yàlla waaw waaw baax ci yàlla la yem